abonné leen ci suñu chaîne YouTube ngir jot saa su ne. naa leen euh, yéen ñëpp ci seen tur euh, ak seen euh, sant di am mbégte bu rëy rëy nekk fii tey ci jotaayu F24 te F24 bu dajewee ngeen xam ne kon l'heure est grave mbokk yi di leen di masawu yéen taskatu xibaar yi yéen journalistes yi yéen organe de presse yi. ci suñu mbokk euh, Walfajri li ko dal jaay doole bi ko dal tentative d'asphyxie financière des travailleurs de Walfajri père maire ak soutien de famille di leen di wu coono di vous exprimer toute notre solidarité lii dal yeneen sénégalais yi moo dal Walfajri boo nekkee une voix dissidente rek ñu président Macky Sall ut ay pexe pour museler la pour tëj sa gémmiñ pour doo wax képp kuy sénégale te nga wax ne àndoo ak li muy doxal ak ni muy doxalee réew mi mu tëj la boo nekkee tele mbaa rajo nag mu fay la mu retirer sa licence mu daan la ay sanctions donc tout notre solidarité à Walfadjri di fàttali ne Walfadjri mu ngi amal euh, manifestation tey ci ay locaux bu trois heures jotee daanaka ginnaaw bu ñu jullee tisbaar tey àjjuma ba noppi ñëpp ñi ko mën nañu dem foofu. bu loolu noppee li ñu fi indi mooy ñun waa F24 nee nañ président Macky Sall bi muy nekk président CEDEAO dafa imposer réew bu nekk ci guerre mu organiser élection. ñun askanu Sénégal nee nañ guerre amul Sénégal Sénégal day dem élection 25 février 2024. président Macky Sall dafa imposer réew boo xam ne il est menacé de partition muy Mali réew moo xam ne dafa wax waa CEDEAO ne leen élection am na solo mais jamono jii dafa am ay Samba Boy yi nekk au nord du Mali. dañoo bëgg a xar Mali ñaar loolu moo ñu gën a yitteel bu ñu fànkee jafe-jafe boobu ñu jublu ci élection président Macky Sall ne leen ak CEDEAO da ngeen di organiser élection Sénégal amul menace de partition Sénégal day dem ci élection présidentielle 25 février 2024 euh, président Macky Sall moo waxoon. si le président Abdoulaye Wade touche à la constitution il sera délogé du palais du palais présidentiel ñun askanu Sénégal nee nañ le 3 avril 2024 bu delloowul nguur gi dinañ ko déloger du palais président Macky Sall moo waxoon ki nga xam ne moo nekkoon président de la République muy suñu pàpp suñu baay suñu maam ab lay Wade ne ko boo delloowul nguur gi la 2 avril man président Macky Sall jiite APR jamono jooju dinañ taxawal gouvernement parallèle ñun askanu Sénégal nee nañ le 2 avril lay la ñuy delloo liñ ko dénk le 3 avril bu lànkee dinañ taxawal suñu gouvernement muy gouvernement askanu Sénégal mbokk yi pesum kanam borom moo koy fajal boppam xeex bii du xeexu Boubacar Camara xeex bii du xeexu sama yaay Aïda Mbodj xeex bii du xeexu Bougane Gueye Dany xeex bii du xeexu Ousmane Sonko ak Pastef xeex bii du xeexu parti politique du xeexu syndicat du xeexu mouvement citoyen xeexu mbooleem citoyen sénégalais la kenn ëppale wu ñu ci wàll ndaxte li président Macky la bëgg def mooy confisque sañ-sañ boo xam ne ñun ñëpp ko bokk ndaxte benn carte électeur laa yor yoruma ñaar yoruma ñett benn carte électeur laa am sama yaay ay dëmbooj benn carte électeur la am yow mii journaliste bi benn carte électeur nga am yow mii nappkat bi benn carte électeur nga am yow sàmmkat yow ouvrier benn carte électeur nga am suñu carte électeur yi yow yëpp ñoo ci yem président Macky Sall daf ñu bugg a xañ bës bi nga xam ne mooy suñu bës ñun askanu Sénégal muy bésu vote loolu nag waruñu ko seetaan ñun ñëpp ñoo war a ànd def benn say fépp ci Sénégal ak ci bitim réew fi doomu Sénégal nekk nañu takk sëri nañu takk ngemb yi fas yéene jàkkaarloog noonu suñu constitution fas yéene jàkkaarloog suñu noon ndaxte benn noon rek la ñu am ki nga xam ne buñ ko seetaanee Sénégal ci coup d'état militaire la jëm ndaxte tey coup d'état constitutionnel la waaye bu ñu continuer dafa mel ni sax président Macky Sall dafa am candidat boo xam ne général la dafa mel ni président Macky Sall daf ñu bëgg a yóbbu ci coup d'état militaire dafa mel ni dafa am général boo xam ne dafa ko ngemb ba pare di ñu gasal ay ndëgg sërëx pour ñu daanu si te loolu duñ ko seetaan loolu duñ ko seetaan addina bi yëpp ne nañ ànduñu ak li président Macky Sall def àddina bi dafa feelu askanu senegal li ci des nag mooy jëmmal jëmmal ndaxte nit quand on n'est pas d'accord on dit non boo àndul ci mbir dangay naan déet maa lànk maa bañ du ma ko nangu loolu nag lañu ñu war a def tey moo tax na ñëpp dem si jumaa yi tey ajuma sol lu weex jëm ci jumaa ji bu ñu génnee ñu sol suñu lu weex wax ne ànduñu ak lii dimanche na ñëpp dem ca jàngu ja ci église yi la même chose dégg naa trois heures maanaam quinze heures tey ginnaaw tisbaar julli tisbaar am na ñu woote manifestation place de l'obélisque bu ñu fa kenn jiitu bu ñu fa kenn jiitu mbir mi suñu mbir la ñun ñëpp lii laa amoon li may wax te xeex bi du dàq feek président Macky Sall wuñu li nga xam ne ñun ñoo ko moom muy suñu constitution muy suñu souveraineté muy suñu moomeel muy suñu élection ci élection lañu jëm rey nañ fi juge élection am na juge démissionné na élection am na nee nañ ma c'est bon j'espère que président Macky Sall dina ko dégg j'espère que dina ko dégg jërë ngeen jëf daa ñëw jël ay cours. incha allah. dugal kay dugal kay kay. auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim ah, li xew moom jaratul ñu koy nettali kenn. vingt quatre bi nga xam ni man Oumar Cissé la tudd mooy député maire de Tëngéej di présider la di présider la coalition Khalifa président di leen wax ni leen rek lañuy laaj mooy vingt cinq février dañuy dem élection incha allah rabbi le le 2 avril le 3 moom day joxe nguur gi buñ ci wax amul luñ ciy waxaat maa ngi. Euh, di wax ak sénégalais yi ne leen gis nga bu ñu indee dérogation neuf mois prochain président mën na ñëw ba feewu mandat mu ne waaw xaaral ma def dérogation cinq ans ah parce que dérogation neuf mois mën na indi dérogation cinq mois cinq ans du laaj troisième mandat day indi dérogation cinq ans mën nañ dem sax ba kenn ku indi dérogation cent ans kon ah kenn musul gis lu mel noonu mu mel ni nit ñi dafay dañu day fay suñu xel dama man je m'adresse aussi au conseil constitutionnel kii nga xam ni mu ne dañ ko jox ay xeetu preuve ba mu d'accord ci ba xawi seen sutura ne yéen sax dañ leen gar ñu dugal nañ leen ay recours ngal wane leen seen bopp bu leen nangu mukk mu dugal leen ci tuuxi doon ndax moom jeexal na day dem ñu ñëpp xam nañ ko fii nag li fi xaw dootul parti dootul syndicat dootul keneen dootul sax leader dootul kenn ñun ñëpp Sénégalais yi ku nekk na dëggal boppam on lui fait face incha allahu rabbi le 2 avril le 3 avril Macky Sall ne sera plus le président de la République jërë ngeen jëf